jërëjëf mbokk Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloog yéen tey nag pour ñëw ñu présenter leen seen septième numéro émission bi ñu tuddee jotaayu làmb jotaayu làmb nag tey am mbégte bu mag a mag a mag euh, dalal Ibrahima fay di Buzz Production ma lay nuyu Ibrahima bàyyi la nga nuyoog euh, internet wu Leewtoo lay nuyu bu baax Assane di nuyu mbokk internet wu Leewtoo TV yëpp euh, di kontaan bu baax a baax te di la ci invitation bi. jërëjëf Ibrahima tey nag ñu nar waxtaan ay ci ay poñ yu bëri bokk na ci relation ak sa Gaston Mbengue. ñu gis temps yi ngeen nekk. ci euh, combat yi di ñëw ñu xool euh, ba xam euh, relation yan nga am ak moom. dinañ wax également ci accréditation combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 dinañ wax ci PPV bi dinañ wax ci statut seen YouTube bi puisque administrateur seen YouTube moom muy Leewtoo TV mais pour démarrer damay wax ci manifestation yi nga xam moom am na te war nañ ko fii ci Sénégal temps yi dépassé Ibrahima yow manifestation yooyu yow nan nga ko duddee. waaw manifestation yi yaakaar naa ni euh, comme tout bon sénégalais am nga loo xamante ne vraiment xaw nañu ci bett gëmuñu woon ni dina am ampleur bu mel nii. vrai loolu nag bu saa yu amee rek. taxaw seetlu day day baax. Mhm. ci ci ci képp koo xamante ne mu ngi yeewoo ci réew mi que mu nekk nga faree ci pouvoir bi wala nga faree ci opposition bi wala nga nekk koo xamante ne tu es neutre taxaw seetlu da ci da ciy am solo. d'accord yow ban taxaw seetlu nga ci def. taxaw seetlu bu ma ci njëkk a def moom mooy euh, tey sénégale yu bëri sonn nañu surtout la jeune population. Mhm. tey jii am nañu vraiment. difficulté yu bëri ci seen ay quotidien parce que tey gis ngeen ni que crise économique certes am na mais Sénégal yaakaar naa ni jeunes yi mhm. manqué nañu ay activité yoo xamante ne am nañ ko comme mel ni cadre seen liggéey wala cadre épanouissement manqué na donc je pense que politique wu état war nañu xoolaat bu baax a baax a baax naka la ñuy dimbalee ndaw réew mi c'est vrai dira manifestation yooyu am nañ ci benn euh, noté nañ ci benn euh, intervention bu mel ni ministre def ministre la justice mu tudd Malick Sall dikk na mbër ñoo waraloon euh, manifestation yooyu est-ce que yow d'accord nga ak moom. non peut-être le ministre je dirais que il s'est mal exprimé. Mm-hmm. nu mu nu mu nu mu waxee dafa juum. Mm-hmm. dafa juum ci kàddu yi euh, am na peut-être am na ñuy justifier ne leneen la bëggoon wax. mais yaakaar naa ni itam euh, bu doon adressé wu à une chaîne sénégalaise du du waxee noonu. donc dafa juum ci kàddu yi parce que ça c'est une erreur vraiment manifeste parce que c'est très très réducteur. Mm-hmm. vouloir lu mu manqué ay combat wak lu bëri nit ñi bëriwul entraîné wuñ ak yooyu moo waral tey lii am ci mbedd bi yaakaar naa ni c'est un facteur très réducteur par rapport ak sénégale yi jafe-jafe yi ñuy dundoo au quotidien c'est vrai erreur boobu moo tax sax démb dalal na euh, mbër yi VIP yi waxtaan jégalu. Hmm. ba pare excuse wu devant les amateurs devant les devant euh, le monde de la noo gisee loolu est-ce lu opportun la woon. ah bon excuse yi on dirait man pour man dégguñu ko ah dégguñu benn yoon le ministre jël kàddu mbër yi ñoo dugg audience ak le ministre génn rendre compte man nag lu ñu doon xaar nag mooy euh, pour le monde de la lutte parce que le, le, le ministre n'a pas seulement offensé les lutteurs Exactement. mais il a offensé en tant que tel le monde de la lutte donc da doon baax moom mu jël kàddu pour tamit adressé wu au Sénégalais et, et du monde de la lutte kese ñoo visé wu même tey ñu wàccoon ci mbedd bi xale yu jigéen ñi ndaw yeeg yooyu yëpp. Mhm. tey bu ñu leen am na ñu leen traité sax de lutteur. donc euh, tey ma yaakaar naa ministre bi baaxoon na mu jël kàddu itam comme ni ko Gris Bordeaux defee. Balla Gaye def ko Khadim Samb ak ñoom Modou Lo. Mhm. mu jël kàddu itam euh, jéggalu askan wi. wax ni que vraiment bëggee wu ko woon nii neneen la ko bëggee justifier ses propos. Euh, loolu est du signifier que ne mbëri chaque fois da leen di utiliser ni nga ko waxee noonu la ministre bi après réunion bi waroon na mën a jël kàddu excuse devant tout le monde mm. mais au contraire mbër ñoom ñoo waxal ne ministre bi excusé wu na est-ce que loolu du signifier ne à chaque fois mbër yi di utiliser à des yoo xam ne nii pour politiciens yi la. non xam nga mbër itam ay magum jëmm lañ. donc yaakaar naa itam euh, du ñu xale te dañuy xalaat di di di di am seen association di avancé parce que comme li ma tàmm wax ci àdduna xeexkat yëpp dee nañu. <laughs> donc boo xoolee Che Guevara dee na <laughs> Thomas Sankara dee na. lu <laughs> mu euh, Lumumba dee na te ñoom ñëpp ay ponkal la ñu woon. xeexkat yëpp dee na donc àdduna des fois day baax ngay xeex mais day baax ngay négocier. parce que yow déjà ministre bi génn na. ay propos ci France 24. Mhm. nga xëy am loo ci wax loo xamante ne vraiment indi na euh, nee nga da koy porter plainte. exact waaw mu nekk loo xamante ne c'est symbolique. Mhm. moom bu wëlbati ko woo la demal nga toog nga waxtaan ak moom. Mhm. mu excuser woog yu mel noonu yëpp léegi ñàkkul moom ay erreur de communication mooy waroon leen sàkku ci ministre bi mu wax. mais teewul pour mbëri utilisation mbëri man pour man ñu naan mbëri waruñ fa woon dem ak yu mel noonu man d'accord ma ci man war mbëri war nañ mun dem parce que la République moo leen woolu. ñu dugg ci fond euh, émission bi en tant que tel maintenant le vingt un février dimanche vingt et un février passé dañu gis euh, Gaston Mbengue def benn face à face 2STV. Euh, ci face à face bi amoon Eumeu Sène ak Lac de Guiers Bombardier ak euh, Balla Gaye léegi ñu gis la ci plateau bi ban qualité nga fa toogee woon. Ah, ak Diène Kaïré ak Modou Anta. exact euh, qualité yu ma toogee woon ci plateau ba mooy collaborateur Gaston nga xam ngeen ni Buzz Pro dafa nekk une structure indépendante. Mm-hmm. buy liggéey ak promoteur yu bëri. Mm-hmm. donc liggéey nañu ak Luc Nicolaï. Mm-hmm. liggéey nañu ak Aziz euh, Baye Ndiaye plutôt le frère de Aziz njaay liggéey nañu nag Fallou Ndiaye liggéey nañu ak sax waa TNT yi Moustapha Diop ak OK ak Africa promoteurs yu bëri bëri bëri macha allah donc on a travaillé avec cinq promoteurs différents dans la lutte on a aussi avec euh, benn promotrice dans la mode muy Adama Paris donc euh, def six ou sept événements différents donc sept événements yooyu bu ñu ci génnee euh, gis ni làmb ji sooxee na jamono ji combat yi amul te crise économique bi nga xamante ni Covid bi waral na ko participer na ci lu bëree bëri bëri Gaston woolu Buzz Pro nekkat moom dafa bëgg def tëgg combat malgré huis clos bi. donc euh, malgré mesure huis clos yi mu tëgg combat am def ko pay per view Sénégal fii nag mu baaxee leen ko gratuitement. Mhm. au niveau de la 2 ak ITV. E mais à l' mu def du pay per view maanaam ñu nekk international doon seetaan 2S ak ITV e bésu làmb jooju seen chaîne du wane làmb ji day wane beneen euh, événement donc parce que fii chaîne de télévision 2STV ITV e dañ jënd les droits pour le Sénégal mais jënduñu les droits pour la diaspora. donc loolu ñun Buzz Pro pour ñu war a mun a collaborer ak moom ci événement bi euh, defal ko ko euh, en pay per view euh, ñu ànd ceeg moom looloo waral ñu doon toog ci plateau boobu pour leeral naka la ñu war a ànd ak moom ci liggéey bi. d' accord maintenant pour huis clos la woon maintenant après ministre des sports Ba def na benn sortie hmm. waxaat ne maintenant amateurs yi mën nañu accéder ci terrain bi ci stade bi. Hmm. est ce seen collaboration bi du am lu ci faussé. non au contraire parce que bo suivre la logique. tey pay per view jiitu na huis clos pay per bu ñu koy appliqué ci Balla Gaye 2 Gris Bordeaux la njëkkee Balla Gaye 2 Modou topp ci mm. après yeneen événement yu bëri topp ci donc pay per view jiitu na carrément euh, huis clos donc tey que ñu nekk huis clos ou sans huis clos mm. pay per view dafay continuer surtout que dara changé wul parce que Sénégal fii le combat de Gaston allait être gratuit sur 2STV ITV le fait que maintenant le public ñëw nar a accéder tey jii o combat nar a accéder au stade terewul ba léegi le pay-per-view diaspora va se poursuivre. d'accord beneen affaire bu ñu ci noté mooy également euh, du chaîne YouTube yu bëri doon accès moo amoon ñoo amoon accès ci face à face boobu buzz moo ko bëggee woon noonu wala. par exemple Leewtoo TV amul information bi euh, Lutte TV ak Equivox. teewee nañ ko yow yaa bëggee woon noonu affaire mu demee waaw ah, c'est très important question bi nga posé parce que mm-hmm. itam il faut ñu comprendre Beuz dafa am chaîne am Ibrahima Faye boog mu laay wax dafa am chaîne am muy Lutte TV Lutte TV la Ibrahima Faye moom mm-hmm. mais Ibrahima Faye moom moom moom kese moom moom Lutte TV mais Beuz Pro structure la bu Ibrahima di sekk ak ñeneen nit di sekk ak yeneen partenaire donc ñuy liggéey ci côté pay per view bi léegi il faut que ñu ñu ràññee promoteur buy joxe par exemple ay accréditation du Ibrahima fay lay décider ne ko yow yaay joxe accréditation yi site internet yi mais nag Ibrahima fay comme dafa nekk partenaire dafa Buzz Pro dafa nekk partenaire promoteur bi en même temps day indi Lutte TV pour Lutte TV jàppale événement boobu noonu waaw donc tey promoteur bi bu dee dafay def face à face 2STV pourtant hmm. promoteur bi TV mais defewul face à face du TV 2STV la amoon contrat ci côté boobu. mais bu dee day def face à face 2STV. Mhm. ma ne ko ah man est-ce que mun naa yebal sama ay ñu ñëw euh, filmer affaire boobu noonu euh, face à face bi avant ak yu mel noonu mu ne ma waa amul benn problème moom mooy du man maay dem di annoncer presse bi ne leen euh, promoteur bi kat woote na. mais tey ñàkkul mu am ñeneen ñu nekk comme Equivox peut-être ñooñu man yëgul ma leen ko sax dama ñëw fekk leen ko foofu. comme des fois itam. man euh, mun naa sekk ak dara promoteur bi jékki-jékki beneen site internet ñëw jël fa ay image donc il faut ñu def la part des choses entre Lutte TV ak Buzz Pro. c'est deux structures différentes mais c'est normal que nag lépp luy événement pay-per-view boo xamante ne Buzz Pro da ci nekk Buzz Pro woo Lutte TV. ne ko jàppale ñu ci événement bi. c'est normal ça mm. ok après dama dégg Gaston ci ay intervention mu ne pour que nga filmer. pour nga am accès ci terrain bi da ngay no loolu man euh, li ma mujjee dégg ak euh, Gaston Production ci événement bi moom mooy tey Mbaye Fall mooy gérer lépp li nga xamante ne moom mooy le cadre le côté des accréditations volet accréditation Mbaye Fall le ordonateur exécutif de Gaston Production moom mooy gérer les accréditations donc moom moo mun a informer la presse ñoom yaakaar naa mettre nañ en place benn adresse email bu de presse arobas gaston production point com production bi amul S donc nee kuy organe de presse nga yónnee fa sa photo ak sa tur ak say information pour pouvoir être accrédité léegi ñoom dinañ am ay critères de sélection mais loolu ça n'a rien à ak Buzz Pro lu muy liggéey Gaston ñu Buzz Pro pay per view lañu liggéey ak Gaston Gaston mooy xool ku mu neex mu accrédité ak condition yu muy laaj ku nekk pour accréditer. d' accord ci accréditation yooyu la ñuy dugg nii euh, man après bi ngeen enseigné foofu euh, c' est si di nga wax envoyé naa fa mel mais amul réponse depuis maintenant ba léegi kenn répondre ma te avant depuis le lendemain la envoyé mail yi est-ce que amun am na ko topp à chaque fois pour que bu ngeen mën leen a répondre yaakaar naa da nga déggul li ma la wax ci njëlbeen li ma la wax ci njëlbeen moom mooy euh, euh, du moo koy toppatoo Buzz pour aspect pay-per-view bi lay toppatoo mais à de partenaire mun naa ci am ay écho écho yu ma ci am mooy gis nga situation dëkk bi mhm. tey lu ñu génn muy les manifestations am na lu bëri lu mu ralentir ci liggéeyu làmb c'est vrai boo amee seetlu tuuti gis nga ni même ñun bés pour dañu ne woon entraînement mbër yi day commencé ci début de mois de mars bi mais gis nga manifestation yi tax na waneeguñu sax entraînement mbëri mais te commencé nañ les tournages mhm. dinañ wane bientôt les entraînements des lutteurs mhm. sur la plateforme pay-per-view gastonproduction.com ak seen affiche.com mais af cadre mail yeeg yu mel noonu mhm. loolu moom mbay Fall moo ci mën a tontu te xam naa dina waxtaan ak la presse par rapport à cela d'accord euh, yow sa niveau de partenariat ak est-ce que yaakaar nga ne euh, am na ay chaînes yoo xam ne ni dañ leen di ciblé pour ñu mën a filmer événement bi wala chaîne yëpp ñoo ci bokk les mêmes droits. no loolu moom ci réunion yi waxoon nañ ko ni ko Gaston dafa am wax nañ ko sax ci face à face bu mujj bi. Mhm. yaakaar naa comme bay Fall toogul woon ci plateau bi newoon na ma ma waxal ko ko. Mhm. mooy maanaam c'est pas tous les sites internet qui seront choisis parce que gis ngeen ne léegi làmb dafa. dafa dafay doy waar yaa a beaucoup d'encombrement ci ci ci ci enceinte bi. da ñëw gis sans caméra loolu mhm. mënul nekk. mënuñu continuer ci aspect yooyu noonu. làmb jeex mbër bi daan war a nekk dans de bonnes conditions pour s'adresser à la presse nga jël deux cent sites internet deux micro ñu wër ko loolu ñun sax rafetul ci image u làmb donc fu mu toll nii c'est clair que dañuy segg tey euh, image yi nga xamante ne Euh, dañuy segg tey presse bi nga xamante ne moom mooy liggéey ci làmb presse boobu ñëw accompagner le promoteur Gaston Production mais loolu encore une fois les critères de sélection mu ngi ci loxo Mbaye Fall mm-hmm. moom moo nara Mbaye Fall le coordonnateur exécutif moom moo nara woo la presse mm-hmm. wax ñan la ñu choisir ak ci yan critère la ñu basé wu pour choisir leen mais li ma mën a garantir mooy mm-hmm. c'est sûr que tey pour le bonheur des Sénégalais qui ont acheté le pay-per-view à travers le monde et pour les gens qui seront devant le petit écran mhm. on peut pas avoir ou 100 internet il y aura euh, je dirais même pas site internet ou 100 parce que y a des chaînes de télé chaîne de télé léegi Sénégal boo leen donc loolu yaakaar naa ni du continuer comme ni mu doon demee d'accord si éventuellement am na chaîne yoo xam ni du respecter seen conditions yi ngeen teg est-ce que condition yu Mbaye Fall teg. yu mbay Fall teg. waaw est-ce que am na ay risques yoo xam ne ñu dinañ ko encourir. risque ci ban côté. risque par exemple benn chaîne bu dikk filmer te amu ci droit. par exemple waaw léegi man nag dama signé dama signé accord ak promoteur boo xamante ne du pay per view kese daf ci bokk itam la sécurisation du flux. la sécurisation du signal. Mhm. Euh, sécurisation des images. ñu koy woowee anti aussi. d'accord léegi promoteur bi dafa moom événement mhm. promoteur bi ñëw indil ma ne ma voici les chaînes accréditées TV Lutte TV euh, Equivox Dakar Actu Sénégo Sénéweb euh, Info Rewmi et cetera et cetera et cetera 4 appuis et cetera. Mm-hmm. ne ma site yi la ak accrédité. ne ma télévision yi la accrédité. man nar a am leen seen chaîne YouTube. nar a am seen page Facebook. yëpp ñu am ko white listé ko léegi qu'est-ce qui va se bu site internet yooyu dañ leen di wax heure bii ngeen am droit dugal ndax dañuy pay per view léegi bu ngeen dugalee peut-être am ngeen droit dugal à partir de vingt quatre heures wala boog quatre heures après léegi bu ñu respecté wul délai boobu ñun suñu partenaires yi mhm. am neen droit bloquer cette vidéo là ou cette vidéo loolu la ñu wooyee le volet anti piratage man du ma mais promoteur bi ñu ngi accrédité bu ma joxee liste bi mhm. man sama partenaires yi laay jox liste bi ñoom ñu nar a traquer lépp luy contenu bi nga na ci événement bi dugg na ci internet bi woon dugg ci waxtu bu mu war a duggee. léegi nag beneen fànn bu am moom mooy am na ñoo xamante ne dañuy nekk ci public bi. Mhm. parce que avant amul woon public wii ku loolu woon am ñoom dañuy nekk ci public bi ku ne xam na ni boo demee Ligue des champions wala nga dem championnat de France dañ lay amuloo droit filmer match bi amuloo droit di ko filmer di ko jàllale ci Facebook wala ci YouTube mhm. donc tey promoteur bi tëgg événement bi moom moo am les droits d'utilisation te jii sur les images qui seront publiées sur internet ak les images yu stade daal c'est sa sa propriété donc gi amateur bi nga xamante day filmer làmb ji sax di ko dugal YouTube wala Facebook ay risque mën na am ci moom ndax mën nañ supprimer page Facebook am wala ñu supprimer page YouTube am d'accord mais est-ce que am ngeen ay moyens ngeen détecter benn amateur bu nekk ci public bi di filmer en ah mais si on l'a déjà fait xam nga tamit nag bay Buzz Pro boo gisee muy liggéey boobu ba léegi ci pay per view. Mm-hmm. c'est parce que xam nga ñu ngi ciy bëgg ñu ngi ciy bëgg a yàgg ñu ngi ciy bëgg a am expérience te loolu mm-hmm. réussir nañ ko. réussir nañ sax journaliste bu nekk ci suuf amul caméra yooyu téléphone di def live Facebook wala live YouTube. Mm-hmm. ñu supprimer page Facebook am wala ñu bloquer page Facebook am. loolu sama xarit Modou Mbaye dal na ko fi ci benn combat. <laughs> boo xamante ne caméraman am mu ngi woon ci wetam mais moom mu téye téléphone di filmer euh, combat bi Lac de Guiers de Boy Niang ba gars yi bloquer page Facebook am. donc les moyens techniques sont là parce que gars bu ñu demee bay bloquer chaîne euh, bu ñu demee bay bloquer compte Twitter mhm. bu Donald Trump ça veut dire gars yi dara tegu leen. exactement boo respecté wul seen ay conditions d' utilisation. d' accord ñu jógee ci volet boobu jëm ci volet bi naan PPV ñu xam ne ñu gis ne yow yaa ko fi initié Sénégal lan moo la jox idée boobu. lan moo ma jox idée pay per view je peux dire que idée pay per view avant tout mu ngi jóge ci euh, nit koo xamante ne il est de la lutte. c'est un grand amateur de lutte koo xamante ne bu mu nekkee xale ñu ko xam. bu muy nekk xale di màgg lépp luy passion am du woon leneen lu dul làmb. donc nit booy gravité ci benn mbir yàlla may la nga dem jàngi am xam-xam ci informatique. Mhm. donc yow da ngay xool informatique boobu nga jàng. naka nga mun a def ba ba ba sa passion boobu nga xamante ne moom mooy làmb. donc lu ñu naan li nga bëgg ci loolu rek la la yàlla di natoo. donc loolu moom moo indi Lutte TV bu jógee ci Lutte TV loolu moo indi lii di pay view parce que pay per view gisoon nañ ni que moment boo xamante ne tolloon nañ ci sponsor yi déserté. l'arène amatul woon sponsor bu doon joxe ay 500 millions ay 1 milliard ak yu mel noonu. donc loolu bu amee ci làmb. c'est bien normal que tey jii ñu xalaat yeneen source de revenu yeneen source de revenu mooy lan mooy la billetterie il faut ñu gën ko ñu gën ko ñu gën ko jox àqam. mooy billetterie woon benn mbër ci làmb. il faut ñu xool billetterie naka lay dem ba fayee ñaari mbër ndax bu njëkk ba billetterie moo doon fay ñaari mbër. mais millions. billetterie bi di ñëw di génne ay millions c' plus normal. Mm-hmm. léegi loolu bu ko gisee billetterie bi doon génne millions mooy làmb ji daawatul woon fees ñi ñëpp dañ ko doon seetaan gratuitement à la ñu doon préféré seetaan angle yëpp ci télé bi que di dem làmb ja. Mm-hmm. les pay per view ñëw ñu ne amatul. Mm-hmm. ñu bëri amateurs yu bëri yu bàyyi woon làmb ak supporters yu bëri yu bàyyi woon làmb wëlbati ko di demaat làmb malgré le prix du billet qui était xaalis bu mu doon perte ci ci ci euh, billetterie mu am mu ñëwaat ba pare pay per view bu ñëwaat permettre képp kuy amateur nekk ci diaspora bi ak képp kuy amateur boo xamante ni mënuloo dem ci stade bi wala yaa ngi sa oto di dox wala yaa ngi sa place mënuloo tëj sa place nga fay pour seetaan donc loolu moom moo indi tey pay per view de telle sorte que dina am xaalis bu dugg di mun a combler gabu sponsor yi nga xamante ne ñu ngi fi nekkoon d' accord voilà d' accord maintenant dañuy xool ne pay bi yow yaa koy séq ak yi léegi sa part yi nan lay demee yow ban part ngay am promoteur yi ñaata la ñuy am ci part. promoteur bi de en général day jël quatre-vingt-dix-huit pour cent ma jël deux pour cent. ah loolu tuutiwul. ah <laughs> yow yaa ko wax de. que ah, man dégg naa parfois ñu ne yow cinquante cinquante lay demee. cinq ça dépend des événements mënu ma la wax événement bu ci nekk ak pourcentage bi may jël. Mm. parce que itam bul fàtte ni que frais technique yi dafa bëri yow sa caméra yi nga teg nii sa lumière yi nga teg sa équipe bi lay accompagner. Mm-hmm. loolu ce sont des frais ce sont des coûts. man su may def pay per view façon sabotage bu ne am naa ko fi ci ci làmb. def naa pay per view ñu dagg sama antenne de diffusion. te loolu doo xam sax. benn supporter mooy daw fële na le gis benn bari barrière bi nekk fii nii mu ñëw pouse barrière bi barrière bi dagg sa fil. kenn mooy ñëw couper sa courant xamul affaire yi mu demee ñëw débranché. donc yow loolu lépp da nga koy prévoir ci contrat bi. mais mais mais dama koy prévoir ci contrat bi mais damay doubler sama système de diffusion yi. wala ma tripler ko même. cest à man su may def man li may investir ci làmb. Hmm. bëriwul sax télé yu koy investir. c'est-à-dire man su may def su def pay per view. dinaa am plusieurs façons de diffuser l'événement. tey jii coupé nañ sama antenne internet internet amatul ci stade bi teewul man maa ngi diffuser par satellite. d'accord donc ak yeneen pexe yu sew yoo xam ne ñu ngi ci biir tey su may def pay per view damay teg ñaari antenne yoo xamante ne moom mooy garantir internet bi du ma sax jaar ci 4G beeg yeneen ak yeneen. donc bëri na fi ay charge yoo xamante ne am naa ko. tey su may def pay per view ma traquer YouTube beeg Facebook kese parce que am na site internet yoo xam du ñu YouTube du ñu Facebook. Mm-hmm. mais bés bu ñu nee site internet bi day diffuser événement bi ñëpp dinañ ci jot ñëpp dinañ ko mën a seetaan donc damay traquer tout le web. su may def pay per view itam damay traqué nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy public bi nekk ci stade bi di filmer ak seen ay téléphone di filmer nekk ci wetu géew bi di filmer loolu yëpp ce sont des coûts donc en fonction de l' événement événement Lac de Guiers 2 Eumeu Sène bokkut ak événement jamaïcain bi ma tooñ ko. xamante ni tëgg na par exemple laay Pythagore ak ñàkk jariñu. laay Pythagore ak ñàkk jariñu mën naa am un système boo xamante ni du ma cher mais Modou Lo Ama Baldé wala Lac de Guiers 2 Eumeu Sène damay obligé am benn système bu may coûter cher. donc événement bu ci nekk ak nu ma koy jàngatee pour teg ci benn pourcentage bu adéquat. donc globalement euh, pour nga revenir sa frais yooyu yëpp environ ñaata franc la lay revenir. non ça dépend des événements. tey bu nekkee da ngay def anti lag Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène. Mm. dafay am opérateur yu bëri yu jàkkaarloog ordinateur bi di traquer les flux pirates am ay robot yu traquer les flux pirates booy def antipiratage ñàkk jariñu mhm. ak euh, laay Pythagore mais événement boobu noonu benn nit rek mun na doy parce que pirates yi du bari donc sa dépend frais yi mënu ma la ne lii la mhm. ça dépend des événements mun naa am événement am frais yi mun na ëpp 10 millions mun naa am événement yoo am frais bi day ëpp 20 millions mun naa am événement des événements naka lay demee donc euh, loolu mooy waral pourcentage bi di varier. d'accord mais est-ce que PPV yaa ngi yaa ngi ciy gis sa bopp est-ce que mi ngi mi ngi rapporté. waaw yaakaar naa ni pay per view fu mu toll nii wax dëgg yàlla. ñu ngi ciy gis suñu bopp parce que bu ñu ci gisul woon suñu bopp dañu ci jëm ci 4 ans di ko continuer. mais gëm nañ ni que fu mu war a àgg àggagu fa. c' tout à fait normal tout début est difficile. parce que on a eu aux États-Unis le pay per view qui se faisait depuis ñoom donc ils ont atteint fu mu toll nii. xam nga le meilleur niveau ils ont de très bons chiffres dans le pay alors que euh, démarré à peine en 2018. te promoteurs yëpp embarqué wu ñu woon. mais léegi ñoom ñëpp ñu ngi commencé di ci dugg ku ci nekk mhm. xam ni xam nga début bi làmb dafa nekk milieu bu doy waar. Mhm. da gis ñenn ñu ñëw ci ginnaaw naan ñu ñii ñu ngi lekk xaalis ak yeneen ak yeneen am ñenn ñu ñëw ci ginnaaw naan mën nañu pay per view ñeneen bu ko def. Mhm. donc loolu dafa compliqué pour imposer Pro a souffert balaa muy mën a euh, imposer léegi nag yaakaar naa promoteur yi comprendre nañ ni que ñun làmb la ñuy liggéeyal. te ñu ngi ci ñu ngi ci vraiment bu ñu nekk bu ñu lay accompagner sa événement dañ ciy dem en fond. d'accord pour réussir événement bi rek moo ñu tax a jóg. d'accord souvent dañuy dégg amateur yi ñi nga xam ne ni ñoom ñooy seetaan làmb. parfois PPV yu dañ koy jënd mais duñ ci am satisfaction day am problème connexion wala genre yu demee noonu est-ce que yan solution ngay apporter par rapport ak problème yooyu. waaw no même yow sa Leewtoo TV bi nga xamante ni yaa ngi koy diffuser hmm. yenn saa yi nga yónnee ko nit nit hmm. kooku ne la hmm. ma yee eh, sa image yi rafet na nice et tout yenn saa yi nga yónnee ko nit nga ne ko ndax seetaan nga sama vidéo bi mu ne la non fi ma nekk dafa am problème connexion donc il faut ñu comprendre ni que pay per view ci internet lay jaar ñun suñu pay per view ci internet lay jaar donc c'est pas toutes les zones qui sont couvertes tey am na yenn zone yoo xamante ne ci Sénégal connexion bi baaxul même dans Dakar fii am na zone yoo xamante ni kenn mënu fa seetaan benn vidéo YouTube. mais am na zone yoo xamante ni tu as l'habitude de regarder des vidéos YouTube donc pour pour nga mën a seetaan pay-per-view il faut que toutes les conditions soient réunies. bu nekkee da am deux MO wala trois MO bëgg ci seetaan pay-per-view. Mhm. c'est normal que du baax mais boo gisee loolu yëpp manque de compréhension la te loolu yaakaar naa mu ngi suñu ginnaaw weesu nañ ko. boo xoolee jamono yi nga xamante ni moom la ñu génn. cinq événements pay-per-view ñu def nit ñi am nañ ci satisfaction. oui def nga cinq événements pay-per-view. ban lutteur moo la wala ban combat nga ci gën a sentir sa bopp. financièrement côté bénéficiaire waay bénéfice. waaw loolu nag du ma ko mën a révéler parce que su ko révéler rek. moom dugg dans la confidentialité quoi. donc loolu je pense que mun nañ ne am na ay événements yoo xam gis nañ suñu bopp bu baax a baax en notamment Balla Gaye Gris Bordeaux le mm-hmm. premier événement pay per view. Mm-hmm. Balla Gaye de Modou Lo itam gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax parce que yooyu ak ak ak Modou Lo Eumeu Sène itam. plus ou moins parce que yooyu ñoo nekkoon pour mu pour mu pour mu dox dëgg. il faut nga jël ci VIP yi quoi. d'accord ci VIP yi yaa ko wax est-ce que am na benn mbër boo xam ne nii sentir nga à chaque fois ñu defal ko PPV di ngeen ci génn. Euh, xam nga fu mu toll defaguñu événement pay per view yu bëree bëree bëri bëri. donc Modou Lo def na ak moom ñaari événement pay per view Balla Gaye def nañu moom ñaari événement pay per view. d'accord ñoom ñaar lañ fi jot a liggéeyal. ku ci nekk ñaari événement pay per view. donc gis nañ ni que ci ñoom ñaar vraiment pay per view bi day dox. Balla Gaye ak Modou Lo te ñoom ñaar rek lañ fi defal deux fois. d'accord ñu dugg ci dernière euh, partie bi moom mooy statut euh, chaîne YouTube administrateur li TV nga. Hmm. est-ce que pour nga am chaîne YouTube ko am Euh, cahier des charges bu la état bi teg wala waaw xam nga yooyu c'est un peu nouveau pas seulement au Sénégal mais dans le monde entier même euh, aux États-Unis au Canada fu mu toll nii ils n'ont pas encore totalement cerné affaire YouTube yooyu noonu donc ñoom ñu ngi commencé di mettre en place des systèmes de taxes ak des systèmes d'impôts yooyu yëpp ñu ngi koy commencé mettre en place sur les revenus AdSense yi nga xamante ne AdSense moom mooy lu lay fay jóge ci YouTube wala jóge ci sa site internet mhm. donc yooyu c'est un c'est un ce sont les nouveaux métiers les nouveaux métiers du numérique mhm. état cerné wul yooyu carrément toll dafa xaw a free parce que chaîne YouTube amul benn kiit bu lay permettre tey jii nga nga war ko ut pour ubbi chaîne YouTube. yow mun nga xëy léegi léegi rek ubbi cinquante chaîne YouTube. te loolu maanaam day nekk ay chaîne YouTube yu yu légal. Mm-hmm. léegi nag euh, chaîne YouTube dafa uteeg presse. pour am nag pour nekk presse boo xam ne dafa am droit de de de de tey jii droit à di joxe information ak yu mel noonu. Mm-hmm. di génn def ay reportage dafa am leneen loo xamante ne moo la war sa diggante ak état du Sénégal. lu ci mel ni ISSN. xam nga ISSN. loo xamante ni da ko war a ut mooy lay jox le droit réel de publication donc loolu da ngay dugg comme maison de presse. mais chaîne YouTube man mën naa toll Canada toll États-Unis toll France toll Gambie créer sama chaîne YouTube kenn mënu ci dara. donc je suis un YouTubeur je publie des vidéos sur YouTube maintenant c'est différent de tey Lutte TV bu ñëw ne presse la. yow mi ñëw nga ne presse la loolu dafa am yeneen yu la war créer sa ISSN de ministère de la communication de ministère de l'intérieur comme étant benn organe de presse. d'accord euh, en ligne yi nekk nañ am nañ benn association mu nekk appel association des professionnels de la presse en ligne Ibrahima Faye jiite ko. Ibrahima Lissa Faye sama tur kooku bëgg naa jàkkaarloog moom trop amaguma occasion jàkkaarloog moom. mais ñoo bokk tur bokk sant macha def benn association yéen waa admi yéen waa chaîne YouTube yéen waaw bon man du ma sama m du ma boole sama bopp ci chaîne YouTube man aujourd'hui je me considère comme étant dans la presse en ligne parce que Lutte TV du YouTube la mais site internet la page Facebook la page Instagram la on est présent sur tous les supports de communication on informe donc on se considère comme étant une presse en ligne orientée sport donc une presse sportive donc man mënu ma mënu ma naan maa ngi dem di créer chaîne YouTube donc damay damay c'est un damay damay considéré wu comme maa ngi dugg dans un facteur réducteur que dëgg la YouTube site internet yoo xamante ne y a des milliers de sénégalais yu koy consulter tous les jours. c'est quand même une page Facebook yoo xamante ne y a des centaines de milliers de sénégalais yu koy. Euh, consulter tous les jours. donc on peut dire que. tey euh, ñun en tant que tel euh, li ñu war a def mooy dugg ci presse en ligne au lieu di xaajaloo di créer ay chaîne YouTube ak ay association de chaîne YouTube. mais nag waa làmb nag am na leneen lu leen war. ñuy liggéey ci làmb. Mm. yaakaar naa war nañ mën a créer benn association bu dëgër bu professionnel. Mm. boo xamante ne vraiment ñu bëri dinañ ci mën a gis seen bopp parce que bëri na ay site internet wala ay chaîne YouTube yu yëngu ci làmb et ils sont même pas légales. bi. mu di la gërëm bu baax a baax Assane Waalo euh, kontaan mais lu tax ñu lay woowee Assane Waalo sama yaay moo tudd Waalo ah Waalo Assane Gueye laa tudd maa ci dugal Waalo bi <laughs> yaa ji dugal Waalo bi <laughs> euh, maa ngi lay remercier bu baax di remercier sa équipe bi nga xamante ne ñoom ñoo ñu accompagner yëpp dans la production di rafetlu itam liggéeyu Leewtoo production bu baax a baax ak liggéeyu Leewtoo TV maa ngi koy wax léegi léegi euh, kilifa gi di Pape Thialis ne ko vraiment gis ko ci féliciter parce que lii itam ça ñëw ci benn structure gis fi ay ndaw kese ay ndaw yëpp di di ñefe di góorgóorlu ku ci nekk di am ci loo jàpp ak yooyu donc mu ngi créer ay emploi donc loolu noonu c'est quelqu'un à encourager et c'est quelqu'un à féliciter parce que c'est une approche euh, boo xamante ne ñun dañ ci kontaan parce que ñëwuloo rek tëgg làmb yaa ngi ñëw di dundal làmb à travers Leewtoo TV à travers Leewtoo site internet te ay ndaw kese liggéey di ci di fi daan seen doole donc on ne peut que l'encourager par rapport à ça d'accord merci beaucoup yow tamit ma lay a a euh, jafe woo jot dañ la woo rek euh, invité la wax la nga accepté ñu ko ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax. Hmm. di la encouragé également ci liggéey bi nga def ñu ngi koy suivre di la euh, remercier bu baax a baax encore une fois. di remercier internetu Leewtoo TV di leen jox dig daje ci beneen numéro euh, jotaayu làmb jërë ngeen jëf.